kilifa la yaakaar la te jàmmale bëgg ci réew mi moo tax jàmmale wootee wax ju rafet bëggante soppante gi ginnaaw li xew ci réew mi am na koo xam ne moom taar réew mi rek moo ko ñor da bëggul Sénégal da day bëgg a xaajale Sénégal ak Casamance buñ ko déglu ndax Sénégal déglu sëriñ bi Sénégal jàmm rek moo fi moo fi xet Sénégal benn la kenn du ko xar ñaar waaye nañ bëgg Sénégal waaye ki bëgg a taal Sénégal xam ngeen ko. assemblée nga yaakaar moo gën ci Sénégal. assemblée bi duñ ci bëgg rek. du bi Modou Gueye du man ma dugg bi Sénégal yi bëgg. les peuples n'ont que les dirigeants qu'ils méritent assemblée bi Sénégal yi tànn rek moom la ñuy am